FONGIP euh, ou bien vous n'étiez pas bon voilà FONGIP c'est une langue waradef mais aussi madame la DG de la case des tout petits se prépare. Monsieur le Président, excusez-moi, j'ai la voix cassée. Ah ouais, d'accord. Euh, dama bëggoon wax rek ne que ci wàllu usine bu ñu wax léegi pour production aliment pour li nga xam ne ñoom ñooy ñiy yar jën mm. defa am li nga xamante ne DG ANA wax na ko léegi mu am ñaari projet yoo xam ne ñoom dugal nañ ko ci ñun euh, benn bi mu ngi nekk Thiès ñu njëkk ko accompagner ci cinquante million exemple rek laay joxe pour ñu xam ne que nu ñu def ak kooku c'est bien possible ñu accompagner leen par la garantie

je pense que nous n'en pour les aliments de bétail parce que l'eau aussi ou na actuellement nous avons accompagner dans la pratique pour que nous puissions continuer d'exploiter exploiter di aliments de bétail Et exemple rek laay maintenant monsieur le président par rapport aux chauffeurs aussi ba exemple yi may joxe une structuration bu nous def appeler les chauffeurs de Nord, accompagner les à travers la mutuelle d'épargne et de crédit des transporteurs ñu dugalal leen garantie portefeuille ñoom ñëpp ñu am ay caaru quinze places yu bees tàq foog naa yàggul dara lañ def remise yi à Bambilor la même chose mën nañ ko def parce que bo amee sa permis de conduire je pense que boo amee sa oto dootoo yaakaar kenn wala kenn dootu la exploiter donc loolu aussi on est disposé vraiment à accompagner à ça. beneen bi nga xam ne moom laa bëggoon wax aussi fii ci Sédhiou bi ñu nekkee Dubai Expo Dubai am na ñoo recevoir woon mooy les Sénégalais qui sont là-bas nga xamante ne dañuy am ay business au Sénégal am na ci kenn ci ñoom koo xam ne fii la dëkk ci ah def usine ba andi matériel yi accompagné ko à hauteur de 190 millions ak fi nga xam ne moom mooy BND. crédit bi disponible andi na matériel am benn moment la décidé euh, de délocaliser le projet à Diamniadio je pense que ce matin, la où les équipes du FONGIP pour voir leen que c'est difficile à Diamniadio mais day ñëwaat à Sédhiou donc pour vous dire le gouvernement mu ngi en tout cas ay nit euh, yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi te kooku projet am rek foog naa dafa war a jël li nga xam moom anacarde bi transformer ko en Amman di ko à Abu Dhabi ak Dubaï le matériel yu baax la jënd war a employé comme nee na dina ko andi waa Sédhiou dina une occasion aussi nous mun a employé ay ndaw fii ci dëkk donc si nga xam ne monsieur le président foofu laay mujjee mooy ci programme yi nga xam ne ko actuellement muy ETER emploi transformation économique et relance dafa am lu wax des indicateurs liés au décaissement nga xam ne ñun dañu war au moins 30 des fonds destinés aux femmes moo tax démb ñu dem TANAF jox leen 30 millions euh, barke dem aussi ci CEDEPS e bi fi nga xam ne moom lañ bokkoon ak waa 3FPT centre yëpp nekk foofu noonu ñu jox les femmes aussi quatre-vingts millions dem nañ boogal aussi mais bi ñu demee je peux dire que le décaissement est fait sur place par le crédit mutuel lu ñu wax duñ ko weddi am na kees yoo diligent nañ day am kees yoo xam aussi duñu am diligence souhaité mais li am solo ba am solo mooy volonté bi nga xam en tout cas président de la république am na pour qu'au moins l'équité territoriale dans le financement soit une réalité dans le pays donc lolo la nous sommes en tout cas disposés à accompagner en tout cas tous les secteurs mais surtout chaque pays, parce que c'est des mécanismes très rapides pour que nous ayons une auto, bëgg nous ñu accompagner leen auto jënd oto diverser en rapport avec le ministère des transports parce qu'il y a même une convention qu'on doit signer avec le fonds de développement du transport terrestre Très bien. Merci beaucoup.